Ousmane Sow président Revas Thiès waaw di nuyu nag euh, ñi nga xam tey jii ñoom laa àndal muy équipe ma àndal tey jii di liggéey te yàlla dong tax muy dépannage gratuit bi nga xam ne chaque année dañ koy def chaque année dañuy def dépannage gratuit te fii ci ci bërëb bii lañu koy defee ànd jeeg nag région yëpp ci Sénégal di def di liggéey rek te yàlla tax ngir kan di jëmmi ki nga xam ne tey jii mooy sëñ Touba ki demul liggéeyal askanu euh, Sénégal loolu moo tax tey jii tey depuis dimanche ba léegi depuis dimanche ba léegi euh, depuis dimanche ba léegi euh, ñi ngi fi terrain fi la ñuy fanaan guddi ak bëccëg fi la ñuy yenn di fanaan di liggéey te yàlla donc tax li ñuy liggéey ci wàllu oto nag fi mu nekk ci allée bi rek lañ nekk gum fi liggéey nañu 70 véhicules ci allée bi nii fi liggéey nañu 70 véhicules yoo xam ne yëpp ci allée bi lañ ko liggéey ànd ceek askan wi ànd ceeg yi nga xam mooy mbooloo mii nga gis euh, ñu bari dañoo dem dépannage sax dañoo dugg ci àll bi dem jëli yenn oto yi nekk ci àll bi mais sinon kon dina ëpp nu wala mën na ëpp lii ndax eh, ndax effectif bi rek cinquante personnes la ñu tey waaye kees déployé nañu cinquante personnes yoo xam ni yëpp ñu ngi sur le terrain pour liggéey te yàlla dong tax ñi di ko def ngir kan ngir jëmmi sëñ Tuubaa ki nga xam dafa demoon liggéeyal liggéeyal Sénégal liggéeyal julliti yàlla yi loolu moo ñu dajale fii tey oto yi nga gis yëpp dañoo paan am na yoo xam ne sax ñii oto bi taxaw bon classe la paan am ñoo xam ay moteur la ñu paan ñi ngi fi taxaw ñoom ñëpp te eh, te xale yi nag vraiment ñu jar a gërëm la ndax ñoom depuis keroog ba léegi bàyyiwuñu defuñu dara koo ci woo day mel ni tey la gi ah, tey la gën a sawar koo ci woo day mel ni tey la gën a sawar ndax lan ndax liggéey bi rek ah ñun nag waa Rewas dañoo nekk Rewas boo xam ne ak ñun ñëpp la ñoo ngi ànd ak région yëpp te ki ko jiite fii euh, ci Sénégal Rewas Sénégal ki ko jiite mooy Cheikh Dianka moo jiite Rewas Sénégal euh, région ba gis nag am na président man may président kees président Diourbel mi ngi fi président lépp ku ci nekk région bi nag am na président am euh, ñu leen coiffé lépp nag mooy national bi national bi ku jiite mooy Cheikh Dianka loolu ci lañ nekk di ñun waa Kees ñoo nekk di taxaw tey di liggéey te yàlla dongu tax fii nag vraiment liggéey bi rafet na trop rafet na trop xale yi dellu ñu gannaaw ci dara oto yi fi taxaw yëpp ëppoon nag soixante dix véhicules ci àll bi rek diggante dimanche dégg ak démb rek liggéey nañ soixante dix véhicules retour bi nag moo des xam nga ko bi nan lay demee mais fi nekk nii li gën a soixante-dix véhicules yoo xam ne ñëpp a ngi nii taxaw àndu ci déwuma ba àndu ci xol bu rafet àndu ceeg euh, Pastef loolu moo ñu tax dajale tey ji ñu di liggéey rek ngir euh, pèlerins yi mën a dem ci jàmm Touba wàññeeku ci jàmm loolu moo ñu tax a jóg ñun waa Rewas Thiès jërëjëf encore une fois bon ah ànd ceeg ñëpp nag quatorze yëpp 14 yëpp ñu ngi ci ànd ak ñoom ndax tey jiitey bu fekkee tey am na ku paan secteur secteur Bambey bi président Bambey bi laay woo fekk am na ku paan waaw maa bi maa bay Fall yaa ngi déglu comme Diourbel Laasana moo fa nekk Laasana moo nekk Diourbel bon euh, biir Mbacke fa la waa Dakar déployé ñëw fa ki leen jiite mooy président Cheikh Dianka mooy président national bi moom moo jiite foofu moom moo jiite Touba jàpp waa Kaolack ñoom aussi ña nga fa ñoom ñëpp ña nga biir Euh, biir Mbacke toog ak biir Touba bon ba ji jannatu foofu ay équipe nga fa ku paan ci côté yi rek da ngay woote boo ma jotee rek ma la balancé la kooku nga dem ñi defaral gratuitement liggéeyal te yàlla dongu tax maa ngi remercier équipe bi ma àndal nag ñëpp nag bàyyiwuma kenn maa ngi remercier ñëpp di di leen gërëm aussi ndax vraiment sonn nañu ñun ñii gunge rek la ñuy def mais ñu li ci des yëpp ñoom la ko léegi maa ngi leen di gërëm di gërëm ñu fi ànd ñi ma àndal ñii ñëpp ah di leen ñaanalal yàlla na yàlla yokk te bañ a wàññi yàlla na yàlla def lépp daal jërëjëf incha allah. asalaamaaleykum man la Mouhamadou Lamine Mbaye waaw dañoo ñëw ba fii eh, jóge Touba bi ñu ñëwee ba ci côté lycée Malick Sy bi ci lañ eh, laal benn doodaan comme oto bi dañoo xaw a suufee ci la quartier bi toj. léegi bi ñu duggee ci biir eh, instant boobu sax dafa xawoon teel bi ñu duggee ci biir garage bi la ñu wax ni ñu ci EDK bi gars yi dañuy jàppale foofu pour dépannage yi daal. ci lañ koy yeew indi ko fii mais wax fa dëgg yàlla macha allah daal ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. waaw gaa yi gaa ñu koy dóoral gratuit te laaj ñu ñu dara. waaw ñu ñu koy xoolal normal amuñu benn problème waaw. ñu waaw taxawu nañ ñu wax dëgg yàlla. waaw ñoom ñëpp taxawu nañ fi bi ñu egsee ci saa si rek dañu koo song commencé ko dóor. waaw fi mu toll nii moom macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. waaw te duñu fay dara waaw. ba ñëwee rek waajal daf ñu ne ci saa si laaj ñu leen dara waaw toog leen rek ñun ñu xool oto bi waaw ñu ngi sant yàlla kon bu baax a baax. waaw noonu mu ko waxee noonu la demee Mamadou Lamine Mbaye la man euh, Mara Mbaye laa tudd sama doom la ñoo àndoon waaye bi ma bi fee ma ko njëkk a ni ma demal fee gars yi dañuy euh, dañ lay dépanner doo fay dara ma ne ko dépanner doo fay dara ma waaw ma xoolaat ko ba si ak mu ne sëñ bi li ñuy wax ni dépanner ne ma ña nga nee toog bi ma ñëwee ma gis ci gilet bi. ñu bind ci loolu ma ñëw laaj ñu ne ma demal demal nga euh, nga wax a kee ma ñëw mu ne ma indi oto bi fii ma ñëw mu ne ma ni kii gars yi dugg leen ngeen dindi affaire bi ma ne quoi ñaata la mu ne ma non fii doo fay dara dañ lay dépanner nga dem doo fay dara ah ci laa soog a gëm nag ni comme mbir mi dëgg la quoi donc wax dëgg yàlla lii moom sant yàlla rek di leen ñaanal parce que tamit loolu loolu dafa doy waa trop loolu dafa dafa neexul a dégg sax ci nopp dépanner la doo fay dara waxee dalay jaaxal mais yàlla def na lii moom weddi gis bokku ci ñu ngi nii toog su euh, suñu oto ngi nii gaa ngi koy defar te ñu ngi nii wax ko kon di leen sant rek di leen ñaanal wax dëgg yàlla lii moom euh, dara gënu ko social donc dañ leen di ñaanal wax dëgg yàlla li ñu bëgg daal ñoo ko xam yàlla na ko yàlla defal ci dara yenn Moustapha ci barke sëñ Touba. asalaamaaleykum mbooloo mi yaa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di sant équipe bii ñu àndal ñun ñëpp man maay président organisation Revas bu Thiès di organise président organisation Revas nationale Dakar Bambay Kaolack ñëpp tout ku ne seen président nga fa président mag bi yëpp di Cheikh Dianka ñu ànd ak moom di liggéey réseau yëpp ànd moom di liggéey ñun cees ñoo resté fii cees ànd ak suñuy sponsor yoo xam ñoo nuy jàppale ki si jiit di moom parent moo nu jëkk defal ay ay masque dafa jëkk moo nu jëkk a jox oto sax si grèvas gépp bàyyi noo yàgg noo dimbali ba tey bàyyiwuñu moo nu jox ay masque jox nu ay gasoil jox ñu lépp xabaan jóob de teedeeg TDK TDK jóop Diop Taïf Taïf Taïf automobile ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ne jàppale MBK ñoom ñëpp Mamour Gueye station bii si kii bi ñoom ñëpp ñu jiite ñu ñoo ànd ak ñoom di di dimbali ci màggal gi di ñu defal yëpp ñu ngi leen di sant di gërëm ñoom ñëpp nag dépannage bi gis nga ni ñu la ko waxee nii oto yaa ngi nii taxaw effectif bi ñu si bëri dañoo génn dem dépannage ñii dem nañ dépannage ak jël yeneen oto yi oto yi fi taxaw ne dafa panne oto bu fi nekk dafa panne suñu président fii si Thiès di Ousmane saw ànd ak ñun ñun ñëpp ànd ak ay mag ñun ñëpp ay Maam Sala Daouda Mar Adama Mar ñëpp a ngi nii ay daama ak séer ak tout ak Balla Gaye ñëpp a ngi nii taxaw effectif sax dafa des mais bu ñëpp ñëwoon tey ji duñ fi xaj wa salaam dina gën a yaatu loolu nag liggéey bi nag rafet na fan yëpp dimanche lañ commencé ba tey tey si ngoon bu guddee la ñuy wàcc incha allahu rabbi